salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu buur ak ñi nga àndal ñëpp bëgg xam lan lañ tuddee sot. waaw bëgg xam parce que ñoom dañ jàpp ni que mbër yu bëri dugal nañ ci seen loxo ñu ci mel ni ay Moustapha Gueye ñu ci mel ni ay Balla bi ak yu mel noonu. waaw mais xam nga fii Sénégal la ko yaa ngi dégg ku nekk am nga ay am di jàmm am ngay xarit comprendre nga am na bis yoo xam soo ko amee say am di jàmm say nit. donc nga seq ñu yàgg seq ñoom teranga bu nekkee ne war nañu mën a jàppale ah ci sama xam-xam bu war na war a jàppale la quoi mais jiñ nañ leen ay sacrifice jiñ leen loo xam ni ci wàllu mystique yàq seen der bi ngeen ji déggee wax yu mel noonu. waaw man wax yow man man du ma ko déglu parce que am na si yoo xam ni du yëfu nit du du nit ki nekk li nekk si yow rek ngay jiñ ñeneen kon noonu laa ko mën a jàppee quoi. keroog jour combat bi gis nañ sax booy di leen saaga di leen di leen di ay signe que ne da ngeen di naan lu ne daal yëkk nañ leen ko te ñu gis ne. vraiment da ngeen garder ko. non amuñu naxar parce que nit bu nekkee ne xamoo ko rek après léegi ngay wax yoo xam ne da ngay reeba tas ñun nañ ko làmb ñu ci bëgg am fan donc donte xamuñu si dara ñu ci bëgg amay fan gis nañ wax nañ lu nekk dégg lu nekk après benn instant liggéey la man laa ko jàppee dañu def suñu liggéey dem suñu yoon nag sa liggéey nag ci ngay amee loo neex ci nga amee loo naqari mais quant man yooyu sa fàtte naa am na yoo xam ne ko wax ba ma jàpp ko wala parce que ma jógee foofu jógee naa ba fàtte naa yow mi ko yoroon ci wàllu mystique gis nañu Balla am lu ci taq ñu ne Balla dafa dagg yàpp yaramam def ko sacrifice pour combat bi est-ce que mën nga confirmer loolu waaw man fenn rek laa leen tontoo ñu ne Balla dafa dagg yàpp yaa ngi dégg di def ay sacrifice mais léegi xanaa mu xanaa loolu euh, euh, saafara yi bàlla doon sangu xanaa après kon moom day dee yaa ngi dégg parce que xanaa nit ki bu nekk da nga dagg sa da nga dagg sa yaram def ci dara mais ak boo sango ay saafara ah dina de ci li ma yaakaar boo saafara yaakaar naa ndox la. ginnaaw loolu fan ngeen jëm ndax ñu ngi naan contre Bombardier euh, wala contre Gris Bordeaux fan ngeen jëm. man duma ma wax Balla ne ko fii nga jëm wala fële nga jëm mm. du ma sàkkal Balla benn adversaire yaa ngi dégg comme li may faral di wax rek moom mooy moom bu ñëwee ba ne ma caar pare pour bëre rek man pare naa. mais keroog ñu gis Sidia te Sidia ya toog nañu lu yàgg gisuñu ko ci seen entourage ba mu amoon ay rumeur depuis combat sa Thiès ak Boy Niang lu jékki-jékki gis Sidia Sidia ñëwaat tam naka la demee. waaw xam nga Syria su ñu ne ñoom ko am ñu benn problème baal su daan bëri dañ daan gis waa Géejawaay daan nañ fa gis Lat 2 daan nañ fa gis Les 2 mais cette fois ci gis ñu kenn méfiance loolu dafa lu ngeen doon moytu non yàlla xam na ni man du moytu loo bàll kenn yaa ngi dégg du ma ko wax ne ko moytul kii du ko wax moytul kële yaa ngi dégg du ma ko wax ne ma ne kii nga àndal ak kële nga àndal ah wax dëgg yàlla man xaw ma ko yàlla xam na ba a ah. jege ah xaw ma ci dara dénk dénk parce que problème euh, xam ñooñu ñëpp ay suñu doomu ndey la ñoo bokk dëgg géej waay comprendre nga am na yoo xam moom yaakaar naa ni war na mën a ñàkk quoi 15 yàlla xam na ni xaw ma ko man doxuma ci yooyu. mais mais Thierno Thierno jour combat bi ci guddi gi bi combat bi jeexee fekk naa la kër euh, Balla Gaye ah. bi ma la taataanee sama micro. Mhm. ma ni foo leen jëm nga ni ma ki nga xamante ni moo yor li ñu moom na delloo li mu moom loolu nga ma waxoon Thierno. maa ci maa ko waxaat. waaw man maa waxaat loolu lu ma la waxoon ba léegi maa ko wax. da nga ne ku booy boo yore jëf jàmbur da nga koy delloo. yaa yaa ko tudd. mais dafa mel ni plan yi plan yi faussé na ah. ah mais mais loolu du dara donc xanaa day bàyyi lamb ji. Mhm. loolu du problème donc koy xaar daal. déedéet non non non nekk ñu di xaar kenn ci taat ndaal ah, parce que nee ngeen moo yor moo yor li ngeen moom loolu ngeen wax waaw Balla nekk fi di di di xaar kenn xam nga du xaar kenn mhm. parce que amatul lu muy prouvé ci làmb d'après ci li may yaakaar quoi yéen a ma gën a xam làmb mhm. amatul lu muy prouvé nekk na ba bëri na nekk na roi des arènes mhm. instant yi dañuy nekk defar plan de carrière Balla comprendre nga nekk di bëri daan moom mooy loolu mais nekkuñu fi di xaar kenn. mais si plan de carrière yi euh, si euh, plan de carrière yi. Mhm. seen objectif moo nekkoon soo leen paree ci Modou dem jël ki nga xam mooy yore titre bi. ki yor titre bi dem na jëli Modou Lo. Mhm. léegi maintenant ñu ngi wax seen combat mhm. contre euh, contre Tapha Tine Bombardier ou Gris Bordeaux yéen ban choix ngeen def ci loolu. waaw mooy li ma wax sànq buur rek man amoo benn choix yaa ngi dégg. Balla duñ ko sàkkal ne ko kii ngay bëreel wala kële man boog man Thierno du ma wax ne Balla kii ngay bëreel wala kële ngay bëreel heure bu demee ba nga xam ne nii euh, waxtaan na ba juboo rek ba ni am naa combat ak diw rek pare naa ngeen benn situation Balla couronne bi mooy li ko soxal ma seen ne neen dootul bëreeg moom même bu fekkee ne kon daan na Modou Lo kon amu leen chance pour jël couronne bi moo tamit aussi bëri ngeen ak moom ñaari yoon daan ko bu jëlee couronne bi est koy may troisième troisième chance. mais ñoom dañu nekk fii waxu mbër bi la fanaan dañu nekk ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañuy wax lu leen neex rek ay kandidat du ma bëre kii du ma bëre kii dañu ñoom ñëpp dañuy wax lu leen neex. yaa ngi dégg donc. tout seen neex bëre naqari bëre. non xanaa day bàyyi làmb ci mais Balla mooy làmb.